cee jokkoog Macky Sall wax ko ko muy sama yitte ba ma ko ko waxee mu taxaw ci temm daal di may booleeg Moussa Fall Moussa Fall xam ngeen kuy Moussa Fall est-ce que xam ngeen général Moussa Fall xamu leen ko de général Moussa Fall mooy ki def complot contre Ousmane Sonko Adji Sarr général Moussa Fall mooy ki nga xam ne moom moo dugal dossier bi section de recherche mooy ki nga xam ne moo ne Abdou Mbeng sama moo ko ñu tëj Ousmane Sonko ci kaso bi mooy ki nga xam ne moo ko wax Abdou Mbeng Abdou Mbeng jël bi jox ko capitaine Touré capitaine moo inspiré capitaine Touré ne ko ku ko dàq ni ko dàq moom moo wax ak sëñ Mountakha Mbacké sëñ Mountakha Mbacké nee na Macky Sall ne ko dinaa la booleeg Moussa Fall ko fexe ba déglu leen ma bu baax a baax a baax ma wax la lu ngeen du dégg fenn loo xam ne bu ñu koy mën wunu ñoom ci seen biir yéen du ngeen ko yëg bi loolu amee lan lañ bëgg léegi sécuriser Touba ba Touba di Touba ba léegi benn kàddu ngay dégg dëkk bi sëñ dee ko moom benn kàddu fi am sëñ Muntaxa ko yore Touba statut Touba li Touba le c'est la première fois dans l'histoire du mouridisme la première fois dans l'histoire du mouridisme à part xëy na ba ko sëñ Abdou Lahad defee ak Abdou Diouf ñu indi fa police ak gendarmerie c'est la deuxième fois que la communauté mouride au sommet Touba ñu dellu ginnaaw bàyyi état dugg Touba c'est la deuxième fois ci sëñ Abdou Lahad sëñ Mountakha ak sëñ Mountakha ñun ñu dëkk Touba ak ñi sant Mbàkke dañuy dellu ginnaaw bàyyi état force de défense et de sécurité ñëw yor suñu kaaraange mu teg ci ne nag duñu leen jiital duñu leen fakkatal ñoo ngi topp seen ginnaaw waaye lépp nag nañu fexe ba mu nekk lu baax lu yiw lépp lu fi ak mbon ñu jëlee ko fi ndax dëkk bi ñu Tuubaa kat ñu baax ñëpp a ngi daw jëm si fi waaye ñu bon ñëpp a ngi daw jëm si fi waxi sañ tu wax waxi sañ Muntaxaa du samay wax kon Tuubaa lu baax baaxee ngi ci fa lu bon a nga fa ñaar yëpp a fa dajoor waaw ba fa ñaar yooyu daje mbaax ak bon di fa kotuwaaye di fanaan di yeew bokk ay lal mbaax ak bon suñ taxaa ko wax ñoom ñu dañ koy jéem a suuxat ut seen police bopp dem ba yàgg tey ñu ne rocc nañ seen loxo léegi dañ koy bàyyee Moussa Fall léegi Moussa Fall moo yor kaaraange Touba sëñ Mountakha ko wax de moo fa tudd ay tur moom sëñ Mountakha moo wax tur bi fa génne Macky Sall la weneen tur yi Moussa Fall sëñ Mountakha makki sàll Moussa Fall ñoom ñett laa déglu déglu leen bu baax la ma leen di wax sëñ Mountakha lan la bëgg ñu aaral ko Touba ndax sëñ bu mag bi moom lim doon def def na ko ba dem na ay waxam ne neen sëñ Touba dem na néewtu fi ñun ñoo fi ne sëñ Touba néewu fi dem na dëkkam bi lu baax mi ngi jëm fa waaye lu bon it mi ngi raam jëm fa takaraange dañ koo soxla ñett Touba ba Touba mucc wax dëgg Touba dafa war a mucc wax dëgg de Touba dafa war a mucc dafa war a am kaaraange dafa war a am kaaraange gu mat sëkk ak mbon jóge fa lépp jóge fa juste loolu dama cee ànd ak moom wax dëgg ba ngeen déggee yéen ñëpp yoo tey sëñ Mountakha day def déclaration yéen ñëpp Sénégal gépp képp ku ko yëg li nga doon njortu te mooy li gën a wér boo ko waxee boo ko waxul te bu fekkee dëgg nga mooy kat ah sëñ bi njort nañ wala bëgg nañu mu wax ci Sénégal fi Sénégal toll ci coow li ci yu bon yi nekk ci réew mi yëpp ak dossier Ousmane Sonko beeg Adji Sarr beeg fexe ba réew mi am jàmm ndax ñëpp xam nañ ne réew mi ci rayante lañ dem yéen ñëpp xam ngeen ko yéen ñëpp ngeen doon njort na sëñ Mountakha dana ci wax ndax bu ci waxoon xay na kat yaakaar am ci